motax yàlla nangul ko liggéeyam njabotu yàlla yep itam man ko deg ne limuy oté mada illa ila khairin wa ila ma fihi maslahatul insan wa maslahatul bashariya lolou la fi nekkoon te dëggal na ci lu bare bëri ci kaw lolou ñu ngi dundu gannaawam ay ay ay jamono yo xamne jamono yu jafe la jamono yu métti la jamono yu métti la économiquement jamono yu métti la itam ci ci diine ak xam-xam jamono yo xamne ay góor yu dëggu ñoo ñëmé taxaw di def guddi gu mel di manifester ci àddina bi yëpp télévision yëpp di leen gis euh wasailul ilaam yëpp ci àddina bi di leen gis di leen photo di leen tasaare te dara dajalewu leen lu mooy dañoo wax ne ñun yonent lañ àndat ñun yonent lañ bëgg ci gannaaw Cheikh Ibrahima mu jiital ñu jëmee ci yonent bi nga xam ne moom moo doon dayoo càkkute ci àddinaam mooy dayoo càkkute itam ëllëg ca àlaxira yàlla nañu yàlla dëggal ci taxawaay boobu te nangu ko ndax itam nit ku nekk war naa niru niru njiitam nit war naa njiit niru ka ko jiitu te ki ñu jiitu muy Cheikh Ibrahima buñ ko niroo mooy ne danañ ko niroo ci mbooleem jikko yi nga xam ne dafay yëkkati nit jëme jëmale ko kaw dafay yëkkati nit jox ko gëddëm dafay yëkkati nit jox ko dayoom dafa yëkkati nit def ko muy nit koo xam ne mën naa def ta ah mën naa jëflanteek mbolé mbindeef yàlla yi ci kaw li nga xamné mom la yàlla teural rahmatan wa adl rahmatan wa adlan wa rafatan bil muminina nga xamné mo doon jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam te ku ne xam ne ne loolu Cheikh Ibrahima bon non lañu wara dundé ñun ay talibem nonu ak mbolé mbindeef yàlla yi am ci ñom yeweti am ci ñom bëggel am ci ñom mébét yu rafet li nga xamné lolu moy deug deug deggi diine deug deggi diine moy innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum diiney dëgg-dëgg mooy ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan di di koy diine wa qulu linnaasi xusnan loolu mooy diine ku ci la ngaamu la ngaamu nga ci diine bu wér ku ci la ngaamu wut nag bëri nañ loolu léegi bëri ay tawilaat bëri ay firi ku nekk yaa ngi firi ni nga gisee ba tax loolu mën naa indi tasaaroo goo xam ne jaru ko ndax cosaan bi lenn rek la mooy ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah Cheikh Ibrahima yar nañu jàngal nañu taalibeem yëpp yar na leen jàngal na leen xamal na leen ci ci jëflante ak jamono ak nu ko jamono laajee bu ko laajee xam-xam ñoom ñëpp ay borom xam-xam ci yoo xam ne ci mbooleem feeñuwaaye xam-xam yi boo demee feeñ nañ ci ci euh, euh, dayoob liggéey boo demee itam mbooleem façon liggéeyukaay yi nga xam ne mooy dolli doomu aadama boo demee dégg ngeen ci fekk ñoom itam ñu ngi koy liggéey am ci ay place yu kawe kawe ñu ngi politique ñu ngi ñu ngi ñu ngi góorgóorlu def ay association yoo xam ne dafay boole nit ñi ndax ñu xaritoo nekk benn mën a dimbalante loolu yëpp yàlla feeñal na ko ci mbooloo mi nga xam ne mbooloo Cheikh Ibrahima la la ilaha allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah